bàyyiwul général Malika Mohamed Bous Mamadou Seck Seck Koupa voilà final merci mbokk yi arbitre baa ngi noonu di wax ñaari mbër yi dimanche 15 mars 2022 stade Mar Diop association des sages moo ñu fi woo muy kuréel gi nga xamante ne ay lancé lutteurs ñoo ko boole bokk ko ay xale yoo xamante ne ñu ngi ci làmb mbokk yi il est vingt heures cinquante neuf minutes général Malika moo la féetee di càmmoñ seen kumba moo la féetee joor combat bu nar a gaaw la noonu mbokk yi Malika démb moo finalu jël oto bi tay ñëwaat na général moytul seen kumba lay ngàdd ngay bañ di ko tëru na ko général tëru na ko tëru na wala da ko nar général seen kumpa ndaysaan combat baa ngi noonu mënul yomb général fàqat na seen kumpa bañ na général seen kumpa ña ngay seen kumpa daw na jëli général du seen doole wala déet ñoom ñaar dinañ bëre général seen kumpa général seen kumpa taw na jël ko plaqué na quatre appuis quatre appuis da ko doon jëli daanu na général na général jël na bi jël na essence bu subaa day dem rek fii de moom bu Malika jël na démb jël na tey félicitations général félicitations général Malika félicitations Hadi